am na wi contre boo xam ne ma nga juddoo ci sori yàlla contre boo xam ne ma nga juddoo la ko jur mooy sori yàlla mooy lan fa awalwaa alhasaru xañaan waaw dëgg la jàngoro bi gën a garaaw ci jàngoro yi tax gën contre xañaan contre nit lu tax iblis iblis xañaan ñaari jàppe ñaari jàngoro yi gën a bon moo ar moo ar mooy ak añaan